sali sama gars yi seen caméra kase deuxième numéro 28 pro ak saw pro ñu ànd seeg sapar sapar ensemble ah, waa ji eh, loolu lay doon xoolal ku bëgg am lu leer topp ñu sapar sapar saw pro caméra kase lu leer nañ xelëf xelëf jàng ak 28 pro waaw ah, na ngeen def mbaam doon wër taxawal mbaam mi lañ doon wër fan yëpp saway Ah, waaw waaw waaw nu ñuy demee nu ñuy demee ci borom. nu ñuy demee ci borom non non nan lañ demee ci borom Serigne Daara mooy lan. eh wàccal wàccal laa la wax. eh da ngaa yaakaar ma kaa saaj mbaam bi saa joxoon. eh laajal eh, booy bi eh. dañ ma kaa joxoon Serigne Daara maa ko jox eh nañ dem fii la. kan moo jox mbaam bi nga xam ne Serigne Daara ma ko jox. wàccal wàccal waaw wàccal wàccal eh teel teel teel sa te sëriñ benn sëriñ daara ñu yóbbu leen fa eh, eh, eh, sa waay benn sëriñ daara ñu ko jox sa waay gaa yaa ngi nii nan fa dem sa waay ngi nii eh sa boy lu ndam yëpp boy fekkee man fekkee ah, daara mooy lan ab ah, benn daara moo fii nan dem nan dem ma yóbbu la këram boy ah, fan ngeen jëlee affaire bi nan moom yéen dama barke suñu joo benn daara moo ko jox nan dem sëriñ daara moo nan dem sëriñ daara fu mu ne sëriñ daara baa ngi fii ko aree guy sew nan dem ak ah, eh, ñu fa eh, eh grand eh. eh guy sew mooy grand eh bala nga ak aree nga ànd ak la ñu ñu dëkk bañ nan fa nu kër ga nekkee fee nga kër ga fekkee man kër ga nekku fii ah, ah? ak daara moo ko daara non non ñi ñi ñi dañoo jël suñu suñu bam bi quoi am sëriñ daara moo ko jox ñi koy faaw ñu yóbbu leen non non ñi faaw ñu yóbbu leen am sëriñ daara moo ko jox fekk man ab sàcc daara yàlla bu ñibbi si faaw ñu yóbbu leen am sëriñ daara moo ko jox sëriñ daara ba ban sëriñ daara la ban sëriñ daara la ban sëriñ daara la eh wàccal wàccal welo bi welo bi fan nga ko jëlee eh foo jëlee welo bi nga man maa ko moom foo jëlee welo bi fan nga ko jëlee waaw sama ma ko jënd sama mag eh kañ la la ko jëndal yéen sa welo bi lañ doon wër fan yëpp nga naan tabaski ba tabaski mooy lan wàccal welo bi maa moom wàccal welo bi dañu xool wàccal welo moom eh, wàccal welo bi ma xool wàccal eh, eh, welo bi ma xool eh eh nga la foo jëlee welo bi lan la ko jëndal eh sama mag nan la la ki doon wër ni lii di mi ngi ne nga naan ma woo ko mu mi ngi ne di ñëw non sa sac bi dama koy téye dama koy bàyyi yow nga sa sac welo ba bari naan ay bàyyi sama sac centre xoolal centre boy gaari ni waay boy gaari ni gaari ni welo bi da ngay dem ah, sama papa la sama papa ñëwal da ngay dem si yow lan ngay taxaw ah. yow loo ah? sa naan eh, nga ni ma sarit demal dama nga ma sarit eh doo nga ma saret lay xaar waaye lu nga man la demal nga la nga ma damay jéggi dama lay yóbbu de dama nga ma lan waaye andi andi mbus jàppal ci waaye andi mbus gi nga eh, eh, ma lan waaye la ma ne sa la ma ci nekk suñu kër laa jógee nga naan waaye seen kër bi nekkoon gàlle bi nga naan ay mi yow jaañ kay la ilaha illallah man man ma ñaan ko ba yoruma téléphone yow yoroo damay eh, ñibbi ma naan fii la bi nga taxawati fii man damay jéggi nga naan la nga naan ma yaay jël téléphone mi nekk fii dama lay tooñ rek caméra kese la dama lay tooñ <laughs> waaw man léegi dafa yaa may may paas ma welo bi welo bi dafa mel ni sunu welo la. welo bi foo ko jëlee. ñëwal nii kaay. Ah. wàccal wàccal nga ñëw taxaw nii waaw jaay yaa ngi jàmm waaw wàccal ba pare. wàccal ba pare bëgg ñu benn problème wàccal welo ba pare. damaa maçon ji woon damaa sonn nii de. damaa damaa sonn ji woon damaa sonn. waaw wàccal welo bi ba pare welo bi foo ko jëlee. Ah, ah. bi la laaj foo bi ah lii de man. waaw ñëw ñëw ñëw nii waaw wàccal nii wàccal séeréer de dama dama son dama ma soñu woon. waaw lii dama ma soñu woon mooy lan tey eh, wuyul kenn yow la ñuy waxal wàcce wala ba pare. alsan wàcce ko alsan. de dama wàcce ko wàcce ko yow normalement waru ko daw télé bi. waaw waaw wele bi foo jëlee wele bi foo jëlee ah, fan yëpp maa ngi ci sànq yi laa nekk. waxuñu ñu ngi ci sànq yi de foo jëlee wele bi foo jëlee wele bi. bi yàgg na de. yaa kañ la woon kañ la woon. mën na juróomi at sax. mën na juróomi at. waaw non non non non. yow yow du yow noo wele bi mën a mën a mat juróomi at wele bi. wele bi wele bi war a daw télé bi saay laajal kii xoolal xool ñii sax xam nañ la kañ kañ ñaata at la wela bi am ñaata at juróomi at ñii kan moo la xam fii fii fii non non loo liggéey la loo liggéey ah, loo liggéey loo liggéey man de jaay de laa doon non non wela bi lañ soxla sa waay wela bi wela bi lañ soxla jaay de laa doon waay ñi ñëpp xam nañ waaw siyaar nañ la waaw wela bi lañ soxla ñi ñëpp xam nañ du yoon du yoon du yoon du yoon mu ko dew tëli seen carte di nga leen di wan après nga bàyyi an sa an sa commandant moo leen yónni pour ñu wër commandant ñu an sa carte moom moom na seere ni na seere ni na seere ni wala ñu carte d'identité bi ma xool na gaaw waaw yow yow dañ laa waroon a yóbbu xam ga bàyyi sama xana mi indi carte d'identité bi mu gaaw carte d'identité bi yow ñaata at nga am ñaata at man de waaw sama at de xanaa du du waaw mi ngi nii may ko génn génn kay génn waaw ay taxawal gaawal Seex bàyyi bi yow bi laa la laaj foo ko jëlee ah bi yàgg naa ak man ay juróomi at yooyu kay juróomi at maanaam ci kanam. waaw ah. mais indi indi carte ah, indi carte d'identité bi. indi carte d'identité bi saa yi jërul wax indi carte d'identité bi ñëpp xam nañ la ñun ñëpp xam nañ la waaw indi carte d'identité bi ñu xool. indi carte d'identité bi dañ lay toogee. indi carte d'identité bi nan lay toogee kamara kese la dégg nga. xam daa am kii quoi fil waaw kii bi laa soxla woon quoi kii bi laa soxla woon taxi yi lan bëgg a wàññi quoi yi nekk biir Touba dafay bari waaw taxi lañ bëgg a wàññi quoi ah ah nan dem waaw taxi ñoom lañ bëgg a wàññi quoi waaw leer loo xamante ni ma dinaa mën a firnde ni loolu nga bëgg tax nga jël sama laam non taxi yi fa ñoo bari Touba taxi ñoo fi bari yooyu la ñuy wàññi taxi ñoo fi bari moom lañ bëgg a wàññi quoi taxi yi fi bari quoi ma lay joxe sama carte grise. il sa carte grise ma xool. non non ma laaj la. waaw waaw nan laa lay joxe sama carte grise te xaw ma la xamoo ma. sëñ bi waaw lii waaw taxi yi ñoo fi bari moom la ñuy wàññi quoi allo nan dem nan dem asa nan dem boo yëlee sama laaj na war nga maa wax lu leer lu ma mën a xam ba xam ne man su ma demee xam ne yow lii moo tax nga jël sama laaj sa carte grise sa carte grise génn ko ñu xool non yow doo am de loi yow civil comme man dama laaj carte grise te wóoroo ma carte wóoroo ma dara loolu tam mënta nekk carte grise yi loolu nga wax d'accord naa ni dañoo bari mais yow lii dee da am da ngeen war police wala ngeen war a ànd ak nga xam non non ana ñi ngeen ana directeur bi ana directeur bi mi ñëw mi ngi ne taxaw xaar ko mu ñëw mu wax ma lu leer na